asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñii seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp tey nag ñu ngi nekk fii ci Touba Wadane Sougou région de Louga departement bu Kébémer arrondissement bu Sagata commune bu Colom Fall ci kër Serigne Bamba Sougou moom Serigne Ahmadou Tasrif Sougou moom Serigne Jéeri Wadane Sougou ci bis bii nga xam ne si ne ñu ngi koy waajal nag at mu jot. ndigal la bàyyi ko woon ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmad Bamba ñaar fukki fan ci weeru koor gi moom la ñuy waajal waaye ginnaaw ñu ngi fekk Serigne Ahmadou Sougou moom Serigne Bamba Sougou waajuram Serigne Bamba jël liggéey bi yëpp teg ko ci loxoom mu ànd kook ay magam ànd kook ay rakkam ànd ko nag ak mboolam njabootuk Serigne Ahmadou Tasrif waaye ànd ko ak mboolam njabootuk Serigne Jiiri Wadaan kon dañuy bàyyi kàddu gi Serigne bisimilah. ci ndigalu sëriñ bi sëriñ Bamba Sougou yal na yàlla guddal safan may la ak wér mi ngi ziare sëriñ Mouhamadul Mountakha. mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Touba xaadimu rasul te bis bi nga xam ne si moom la sëñ bi dëtmal di koy def mu bàyyi ca maamam ja sëñ Touba xaadimu rasul sëñ bi mi ngi nuyu sëñ Maxtaar Sougou mi nga xam mooy xalifa sëñ Maxtaar su sëñ Njéeri Wadaan di magam di kilifa dëkk bi di kilifa kër gi ñu nekk moom sëñ Bamba nag di xalif sëñ Ahmadou Tasrif Sougou wootu fi woy juróom wi sëñ Ahmadou Tasrif Sougou 1993 bis bi nga xam ne sëriñ Touba Xaadim Rasoul moo ko diggoon sëriñ Ahmadou Tasrif 1926 ci njaarim bis boobu moo jub si ñu koy amal ren 31 mars ci weeru tubaab di ñaar fukki fan ci weeru koor muy bis boo xamee ne sëriñ bi muy sëriñ bàmba mi ngi koy fàttali mbooleem ñi mu bokkal ummal islaamiya ñëpp murit xaadir tijaan ak képp kuy wax koo xam ne yaa ngi wax asadoon laa ilaha illallah wa salaam muhammad rasulullah mu ngi ci woo mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa xaadimu rasul ñëpp mboolem seexi Serigne Touba yëpp mi ngi leen ci woo buntu kër Serigne Touba yëpp mi ngi leen ci woo buntu kër seex yëpp mi ngi leen ci woo Serigne bi mi ngi ci woo taalibe yëpp nga xam ne dañoo aju ci kër gi muy kër si Ahmad Tasrif ak kër Serigne mbokk yëpp Serigne bi mi ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne ba mu ko tàmbalee amal ba léegi mu bàyyi ko ci turu Serigne Touba mu Rasuul amul lu dul bis boobu bis bis boobu nag. moo nekk bis boo xam ne ni mu ko ñoree mooy ni mu ñore woon way juróom si Ahmad Tasrif Sougou yan yàlla yokk ay leeram ndax lu bàyyi koo Serigne Touba la loolu nag moo tax sëriñ bi ni mu ci woowee mbokki tijaanam yëpp mu ngi ciy jiital waa kër Serigne Mayib Sougou ca Tiwaawoon ñoom mu ngi leen ci woo ak mboole mbokk yëpp bis bi nga xam ne jub si na mu war a nekk dimanche ñaar fi ci weeru koor di fanweeri fan ak benn ci weeru tubaab mu ci woo mbooleem jànkatu alxuraan yi di ci woo mbooleem ñi nga xam ne Sénégal ñor na waaye sëñ bi tamit noonu la ci woowee autorité yëpp wax dëgg yàlla di wax ne bis bi moom ak ñoom ñoo ko bokk autorité yi nag mi ngi ciy jiital sous préfet ak préfet ak gouverneur ministre de l'intérieur ak président de la république nga xam ne nekk na koo xam ne ni ko sëñ bi ñaanale noonu lay ñaanal réew mi ndax moo jiite réew mi te bu amee jàmm rek réew mi yëpp am jàmm sëñ mi ngi ñaan jàmm ci réew mi di ci woo tamit monsieur maire bi nga xam ne moo fi nekk ak ki nga xam ne conseil départemental moo ko yore ci département bi ñu nekk muy département Kébémer mboolem kilifa diine yi nekk ci département bi yëpp sëñ bi mi ngi leen ci woo di ci woo taalibe yi di ci woo mbokk yi di leen wax ne bis bii kat bis la boo xam ne képp koo xam ne sonn nga ci ci mbaax ci dundal ko sag yokkute la àddina ak alaaxira te sëriñ bi ak yokkute ak la bëgg la bëggal ñépp moo tax sëñ Tuubaa digle ko mu ngi nekk ci weeru koor mu nekk weeru màgg wu sell nekk ci fukki fan yu mujj ya te mooy ñaar fukki guddi ya ak benn bis boobu nag bis bu am solo la ci diine rawatina na ci diine lislaam taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew sëñ bi nee na mi ngi leen di soññ ci ak taalibe di leen soññ ci ak jullite di leen ci jaamu yàlla di wax ne nangoo liggéey yooyu rek mooy sëñ bi wootee di ci woo bépp taalibe li nga xam ne mooy fii ngeen nekk te mooy kër gi ak li sëñ jéeri di woote ne na ngeen ci gën a góor góor te nekk ci bis bii nag ci jamono si Ahmad Tasrif ba ci jamono moom mii kenn ku nekk seen taxawaay taalibe yëpp sëñ bi mi ngi koy gis mi ngi ci gis taxawaayu soppe yëpp ak xarit yëpp ak am di jàmm yi mi ngi leen di ñaanal lépp lu ci waay def yàlla nga ko gën a man te yàlla na ko yàlla nangu lijaay jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Serigne Ahmadou Tasrif moom mi nga xam ne moom lañ duppee maamam.